te doy na preuve. waaw gars yi gis nga lii de gars yi la wax maanaam mbër bi Zoss ah. Zoss boo fi def soog léegi gars yi fii ci Malibu bi doon waajal combat bi demee incha allah ah. mot bi. gis nga de nattu gars dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw vraiment léegi léegi dafa def soog fii ci Malibu bi Zoss. Zoss jàmm ci yow lu bare bari. jàmm ci yow lu bare bari Zoss. dafa la jàpp rek yow incha bu la dara dal lii moom gars dafa nattu la quoi waaw lu war a am moom gars yi mu ci dara vraiment. Zoss jàmm ci yow lu bare bari Zoss jàmm rek. lu doy na lii de gars yi wax bi Zoss ah. Zoss boo fi def soog léegi gars fii si Malibu bi. doon waajal combat bi demee incha allah ah. mot aada face bi. nattu gars dafa gaaw quoi nattu dafa gaaw vraiment léegi léegi dafa def soog fii ci Malibu bi. Zoss Zoss jàmm ci yow lu bare bari. jàpp ci yow lu bëri bëri sos dafa la jàpp rek yow incha la dara dal waaw lu mu ci dara vraiment sos jàmm ci yow lu bëri bëri sos jàmm rek